Baedie est un chanteur et percussionniste du Sénégal, présent à Paris ce week-end, où il a assisté au fast au face entre Modulo et Balagay 2. Mbediaye a commis une énorme bourde en comparant les deux lutteurs au vénérable guide religieux, chez Amadou Bamba, et Serigne Babakarsi. Les talibés mouriques très en colère contre le percussionniste du Super Étoile, Mbediaye Faye brise le silence, et s'explique. Assalamu am di jàmm yi asalaamaaleykum mbokk julit yi xarit yeeg soppe yi ma ngi nuyu ñep di jox ñep sama nuyoo bu ànd ak dal ak njekk man bay jey Faye day maa fas yéene woon waxtaan ak yeen pour rek gannaaw bi len leen may wax ni am na lu fi jot a xew ci réseaux sociaux yi ñu koy dégg ba ñenn ñi seen xol naqari mu fekk ni li ma wax ci biir face à di diggante Modou Lo ak Balla Gaye ñuy ay jullit di ay taalibe am ku jël sama wax dagg ko ci ni mu ko neexee ak ni mu ko bëggee sànni ko ci réseau sociaux yi ngir ñu déglu ko wala yàq doomu deru doomu aadama te man mii de defoon naa ni nit boo amee ndey am am baay am njaboot waroo xool benn doomu aadama boo am ndey am baay am njaboot ne xaaral ma tilimal deram jaxase ko aduna te kuma xam-xam ni xawma dara lu ñaaw ci samay wax rusna wax lu ñaaw rusna wax wax ju tegginewul rus naa wax lu noy xeebe bi ma juddoo ba fi ma tollu ni sañatuma ko de ta sañuma ko it ta xawma ko sunu mam alaaji malik sunu mam cheikh madou bamba sunyi wasilalam kita besering baba karla la waaye boo sama kër alaji fallo nga fay dagu nga dugg ker, kër baba kar ngi fay dagu këru diine yi nga xam mam maam mbaay fi mam mbaay laaya ngi fi bokkunte njaasaana ngi fi mam cheikh madou bamba ngi fi mam alaji malik ngi fi ñuy sunu ay di sunu ay kilifa di sunu ay sëriñ doomu aadama daal di ne xaaral jëmm jiikat lii mu wax ne xaaral ma xool li ma ci neex ma dagg ko monte ko sànni ko ci réseaux sociaux yi ngir tilimal beram ah waaw nit day dina fàtte ne bésu penc am na te layoo dina am këru diine yépp awma fa fenn sens interdit ndax suñuy sëriñ ñu fa ne ak suñuy xarit ak suñuy soppe kon nak li dong mo taxoon mané ni ma def vidéo bi ngir léral ndax dama né ñaari mbeut yoy fofu ñu bok war tax rek waru ñoo wax dara lu ñaaw ci lamb ji wayé nak ñi seen xel neneen lay déggé ñi seen dégg-dégg guddul waaye aduna moom mo ni nye matuñu moo tax ñu ngi jéggalu di baalu ci ni nga xam ne sax dégg nan la doomu aadama boobu def yàq samay wax tilimal ko salteel ko ba tax mu am ci sax ñoo xam ne xëy na seen xol na waaye ku ma xam-xam ne lu ñaaw xawma lu bon yar rek lañu ma xamé wax lu bax lañu ma xamé def lu rafet lañu ma xamé yene ñepp jamm lañu ma xamé tax sénégal sénégalais def ma seen xol li rek nak mo taxone mani xarama def vidéo bi ngir leral ni dégg sax wax ji te déglu wuñu lepp kon assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa vive notre pays de la teranga le senegal dëkku teranga dëkku yërmande dëkku jàmm man Mbaye Dieye Faye maa leen doon nuyu waxtaan ak yéen ci li fi jote xew pour wax leen ni rek loolu daal du man déedéet déedéet jërëjëf.